abonnez-vous sur sunu seen FTTV Sénégal la chaîne des patriotes ça sonne en ngeen et am ay xibaar yu wér te wóor ba abonnez-vous sama gars yi maa leen bëgg di leen si di leen Gabriel Kane d'abord def sok dégg naa dégg naa Amérique la doon Amérique dégg naa Macky Sall laa ko fa joxoon rendez-vous pour ñu dajee ko xam nga Macky Sall daa Washington xaw ma joxoon Gabriel Kane ndeysaan rendez-vous pour ñu dajee fa xam naa da koo passeport diplomate ndax Amérique Amérique jékki-jékki rek paas dem fa moom yombul ndeysaan ca yàlla lii xam naa ne fu ñu def Adji Sarr la ñuy wër fu ñu def Adji Sarr la ñuy wër quoi mais du leen ci génne de Adji moom fu mu mënta dem dina ñëw dina ñëwaat incha allahu rabbi. kanaa mu dee rek maa leen a Gabriel Kane dafa def soog dégg naa dégg Amérique la doon dem Amérique dégg naa Macky Sall laa ko fa joxoon rendez-vous pour ñu dajee ko xam nga daa war a dem Washington xaw ma joxoon Gabriel Kane ndeysaan rendez-vous pour a daje fa xam naa da koo joxale passeport diplomate sax ndax Amérique Amérique jékki-jékki rek pass dem fa moom yombul ndeysaan ca yàlla lii xam naa ne fu ñu def Adji Sarr la ñuy fu ñu def Adji saar la ñuy wër quoi mais du leen ci génne de Adji Sarr moom fu mu mënta dem dina ñëw dina ñëwaat incha allahu rabbi kanaa mu dee rek aleykum salaam